jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo mi FM 97.5 maa ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal suñu mbokk auditeurs yi ak euh, suñu mbokk auditrices yi nga xamante ni samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h euh, ñu ñuy déglu ci seen émission pencum réew mi Abdou Khadre Seck moo nekk ci micro bi du Diawo Diallo moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi nag tey ñu invité Mouhamadou Moustapha Diagne. Euh, jiite parti bii di euh, Synergie républicain waaye tamit mu nekk coordonnateur euh, kuréel gii di Macky 2012 xam ngeen ne Macky 2012 kuréel la goo xamante ni tey ku tudd président Macky Sall ak ni mu faloo ci réew mi sa xel dina dem ci coalition Macky 2012 waaye coalition boobu tamit coalition la boo xamante ni bëri na trop trop li nga xamante ni maanaam mooy ay coow. Euh, dinañu si daal di waxtaan dinañu wax si li nga xamante ni mooy euh, actualité Mouhamadou Moustapha euh, réew mi FM ma ngi lay nuyu. sëñ Abdou maa ngi lay siyaar bu baax di nuyu auditeur mi FM di kontaan trop ci invitation bi. dëgg la gëj na booba léegi ñu ngi koy sàkku mais tey la ko yàlla dogal. Mm-hmm. di ñaan yàlla rek waxtaan bi nekk waxtaan bu am njëriñ askan bi. Mouhamadou Moustapha Diagne tey la fukk ak juróom ñetteelu at Euh, ginnaaw bi batalo Joola euh, suuxee euh, ñuy ñaanal ñi nga xamante ni ñoo si loru yàlla suñu borom sotti yërmande seen kaw ñi nga xamante ni nag ñoo ñàkk ay mbokk ñu ñaan yàlla defal leen xolu muñ yàlla teg loxo tamit ci ñi nga xamante ni ñooy njaboot gi ban message ngay yëkkati jëm ci bisu tey bi. waaw dafa nekk bis bu tiis. ndax man sax bateau bi bi muy suux booba euh, man maa ngi ci classe yi di jàngale te ci at moom sax maag suma ay élèves defoo nañ ay études ba xam bateau bi euh, ci yan condition la suuxee woon ñàkk euh, waaye waaye lay boo boo boo defee études yi sa yaram dafay dafay daw ndax bateau boobu lu ne xew na fa di ñaanal ñi nga xamante ni bile ñoo ca génn àdduna ndax it foofu la ko yàlla yemale seen dund yàlla xare leen àjjana. Mm-hmm. Ah, ñi njaboot gi ñu fi bàyyi aussi yàlla teg ci teg ci loxol. di di ñal aussi état bi mu gën a góorgóorlu ci ñoom. Mm-hmm. ndax euh, dégg na affaire pupille de la nation et tout je que loolu lu am solo la mémorial bi ñu leen defal aussi euh, ñu gën ci taxaw mu mu mu mu gën a gaaw. waaw man nag je pour le renflouement du bateau maanaam nañ ko pour man bateau bi ñu ko war a génne mhm. euh, donc euh, ñu ñu suul ko euh, suul ko feneen comme ça mu doon sanctuaire bu ko defee parce que ñi nga xamante ni bile ñoo ci loru tant que ñi ngi xalaat foofu rek ndeysaan seen seen xel mhm. seen seen xol du neex donc mais man man ça il faut ah. man il faut ñu génne ko léegi justice côté justice ñoom nee nañu ba léegi bëgg nañu justice am waa xam nga dafay dafay lu compliquer la waaw man na jàpp naa ni comme euh, ba muy am ah wax dëgg yàlla état nangu woon responsabilité am waxtaan nañu nañu ba am ay dédommagement et et tout li ëpp solo la pour man du du def justice li ëpp solo mooy euh, njaboot gi nga xamante ni bi ñoo fi ñoo fi ñoo ñoo fi nekk surtout ñi nga xamante dafa fekk ñu nekk ay xale lool seen waajur jëm ci àdduna ñu te ci loxo état bi gën a jàppale li ci des ñu rafulé bateau bi bon euh, justice bi nag dina compliqué parce que état bi responsable la mais aussi xam nga barche bi bateau bi surcharge. Mm-hmm. moo ko moo ko indi. te bu ñu fa bëggoon nekk justice ñu jël avocat état bi jël ay avocat dafay compliqué trop te ñu bëri état bi gouvernement bi ko bi ko kii woon bon nekkatu fii. mën daal nekk lu compliqué day doon ay xolli góom. Mhm. te juste bu ñu ko aussi mën na yàgg trop procès yu yàgg trop la. Mhm. ndax ku ne day bu baax ku ne day am responsabilité parce que yow état bi surcharge nangu surcharge bi. Mhm. am na ci responsabilité population ñi nga xamante passagers yi nga xamante ne bii aussi. Euh, ñu ko duggoon ci surcharge am na responsabilité mën na compliqué. c'est parce que bu ñu demee justice rek dañuy bu ñu pensé ni que dañuy gagné loolu également nañ ko teg ci suuf affaire bi yàgg na. donc euh, nañ xalaat surtout daal njaboot gi xam ne ñoo fi des ñu teg ci ñoom loxo. d'accord jërëjëf euh, Mouhamadou Moustapha Diagne te yow yaa nekk suñu invité ci rajo Rewmi FM émission bi dañu koy doore ak euh, coalition Macky 2012 yow nga nekk coordonnateur. ci geneen wet gi tamit ñu gis ne maître Moussa Sarr moom tamit nee na coordonnateur la maanaam Moussa Diop maître Moussa Diop coordonnateur yéen Macky 2012 coalition la boo xamante ni coow li bari na ci. mais euh, ndax est-ce que mën nga revenir ci coalition Macky 2012 nan la sosoo ak yan teet ñoom ñoo ko taxawal. jërëjëf Macky 2012 bi mu bëggee euh, bi ko président bëggee nekk candidat ci la ko taxawal en 2011 fële ci këram gi ci Mermoz. Mm-hmm. Euh, Alliance pour la République bu président Macky Sall nouveau parti. booba bu Mahmoud Saleh booba léegi Alassane Cissé moo ko moo ko jiite. Mm-hmm. modèle. bu Ibrahima Ibrahima Sall Synergie euh, républicaine bi nga xamante moo man moom laa jiite Mouhamed Moustapha euh, am na aussi euh, Mag authentique bu Ansoumana Danfa amoon na beneen mouvement ëllëg Sénégal bu Pape Ndaw Pape Amady Ndaw bu bu Mbour mhm. donc ñooñu ñoo ko të njëkk taxawal après nag aussi les professeurs ñoom Assane Dia Eh, doog a doog a ñëw Baraka eh, yaa aussi Momar Awa Seck ñii ñëpp boobu sax Moussa Diop nekku fi wax dëgg yàlla am na sax ñu ma fàtte mais bi ñu koy taxawal bu ci njëkk vingt 26 parti la woon te i Macky douze bu fekkante ni bii ay kayit la bu ñu demoon tribunal Moussa Diop du ci bokk parce que i demi Macky 2012 26 parti la yoo xam ne ñoo déposé seen kayit seen récépissé pour. Euh, déposé ko greffe conseil constitutionnel. moom partem bokku ci. déedéet partem bokku ci pour euh, président Macky Sall nekk candidat parti Moussa Diop bokk ci. Hmm. kooku waaw li ci dugal nag après bi ñu ko créé par dañoo ubbi ndax Moussa Diop candidat la woon Damel Moussa Fall candidat la woon euh, professeur Samb candidat la woon ñoom dañoo nekkoon candidat à la candidature bi ñu demee xam ni boo du sotti ci lay ndaw ñëw Macky 2012. mais ñun Macky 2012 dëgg mooy ñi nga sanc ba pare eh, bind eh, taxawal yo programme yoonu yokkute ñoom fekku leen fi donc bëri na ci ñoo xamante ne bii xëy eh, na ñoom Zahra Iyane Thiam ak ñoom Abdou Latif Coulibaly dañoo amoon coalition après bi Abdou Latif Coulibaly kii ñoom yaaw ñëw donc bëri na ay ñoo xam ne ñoo amoon coalition mu tas ñu daw ñëw ci Macky 2012 Eva Marie Coll mouvement la yore ñëw dafa am ay mouvement aussi du ay parti rek dafa am ay parti am ay mouvement Eva Madikol Seck euh, mouvement la yow aussi ñoom Dame Seck yoroon nañu ay ay mouvement bëri nañu ay mouvement mel noonu xam ne donc Macky 2012 parti politique la ak ay mouvement ba mat nag 52 juróom fukk ak ñaar mais bu dee na ci wàllu kayit moom 26 parti yooyu ñoom la état reconnaître ñooy Macky 2012 boobu moom Moussa bokk Moussa Diop aussi bi candidature bi mu ko lancé xam du sotti ci la daw ñëw comme ñëpp voilà léegi euh, Mouhamadou Moustapha Diagne euh, Macky 2012 comme ni nga ko waxee waxee sànq ni Euh, APR euh, bokk na si ñi nga xamante ni ñoo taxawal coalition Macky 2012 ndax APR parti la comme Synergie républicaine nekkee parti. mais est ce que tey APR ñoom am nañ représentant ci biir coalition Macky 2012. waaw ma fàtte aussi ku am solo màgget ngoom bu Nida d'ailleurs moom moo daan def convocation yi. di woote di convoqué parti yi moom ku ku amoon solo ci ci yëf yi yaa aussi ñoom Habib Ndaw euh, bu bu Kaolack donc donc soqali soqali Kaolack Euh, yooyu yëpp non pour te dire que euh, coalition bi bari na léegi nag euh, coalition bi dafa am président président bi mooy Macky Sall en fait moom moomu coalition moom président kii am na ñu ko représenté Mahmoud Saleh parfois day représenté surtout moom moo moo gën a représenté parti bi parti APR ci ci. ci ci coalition bi Mahmoud waaw. moom daal laa jàpp ni parce que parti yu bëri sax protocole d'accord yi yéen lii Euh, entre li lié partie boobu ak euh, candidat Macky Sall euh, Mahmoud Saleh ak Seydou Gueye ñoo ko bind ñoo ko bind. waaw léegi Mamadou Moustapha Diagne man en tant que koo xamante ni tey dafay observer en tant que journaliste man damaa gis ne Macky Sall fullaalul wala joxul gëdd coalition Macky 2012. man loolu laa gis en tant que observateur en tant que kuy xool en tant que gis doxalinam en tant que ñuy gis ñi fa nekk ci seen i kàddu ak seen i doxalin man loolu laa jàpp yow lan moo ci sa xalaat. waaw Macky 2012 dafa am Macky 2012 yu bari dafa mag am Macky 2012 ba président Macky Sall dem premier tour am Macky 2012 ba président Macky Sall gañ deuxième tour am Macky 2012 bi président Macky Sall nekkee euh, nekkee président de la République dafa moo tax y a plusieurs générations de Macky 2012 euh, boo fekkul histoire bi nag lu bëri doo ko xam ndax am na ay jamono aussi suñu digganteeg président Macky Sall neexul trop. muy mil 2013 2014 ba moom vraiment euh, amoon na tuuti jàmmarloo diggante président coalition bi ak kii parce que jubóobuñu woon ci ay mbir yu baree baree bëri parce que euh, donc wàllu transhumance wàllu coalition benn Bokk Yaakaar wàllu yenn choix politique yi boobu jubóobuñ ci ci dëgg wax dëgg rek neex yàlla donc on a mën ensuite am na ay jamono waa APR taxaw ci tas coalition Macky 2012 parce que dañoo jàpp woon comme concurrent boobu aussi ñu taxaw moo amoon ay ay reen donc pour dire que coow li aussi am na ñoo xam ne dañoo naka la président gagné rek dañoo bëggoon tas coalition bi donc mu am ay xeex yu bëri boobu sax Moussa Diop fekk mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi tugal donc Macky 2012 pour pour mu sax bu fekkante ne bi ñun taxawuñu woon kon kenn waxatul wax Macky 2012 malheureusement nag euh, coalition bi dañu xeex xeex xeex pour euh, euh, surtout am na ay jamono yoo xam ne ba tey nomination la booba gaye nañu. ñu namee waa benn Bokk Yaakaar du ñu war namee waa Macky Nabi il faut mener cette bataille-là nous l'avons menée tey jii leaders yi nga xamante ni bii yëpp c'est les vrais leaders de Macky 2012 président Macky Sall nommé na leen wax dëgg yàlla ñëpp nommé nañu leen xanaa kay nga xeeb wala ko bañ a ñu si bëri aussi ñi des mi ngi leen di euh, jàppale ci ni ko ni ko mëne muy benn fànn boobu aussi kon te combat boobu ñun ñoo ko ñoo ko mëne on am na ay jamono yoo xam ne coalition Macky 2012 six personnes la woon juróom-benn nit ñoo doon mën a combat bi léegi instant bii ñaata coalition Macky 2012 moo am. wax xam nga maintenant nag dafa am jamono Faltier bi mu nekkee coordonnateur mu ubbi ko bi mu ko ubbee am ñoo xam ni 2017 lañ fi ñëw ñii 2018 lañ ñëw ci coalition bi donc xamuñu luy Macky 2012 ñoom bu ñuy ñëw c'est surtout rek pour am ay kii pour président Macky Sall jege président Macky Sall parce que parfois da ngay ñëw euh, bëgg a bëgg a transhumé. mu gën a gaaw mooy nga nga dugg coalition Macky 2012 pour gis par président Macky Sall bu mais moo tax après ñu bëri ñoo dugg si boo fa demee nga boo demee audience bu ñu demoon audience nii tey Macky 2012 ñu bëri président Amadou Sall xamu leen xàmmee wu leen c'est pas normal te bu njëkk ku mu jox sa loxo ku mu jox loxo rek dina jaar sa tur. jaar sant coalition Macky 2012 500 waaw mooy surtout non surtout côté Moussa Diop bi mais ñooñu ñooñu ci indiwu leen fi Moussa Diop indi leen fi ci ci jamonoy Thiel lañ fi ñëw ensuite Macky 2012 am na benn parti boo xam ni dañoo créer coalition muy doomu réew mi man su sax ci laa ci laa bokkoon c' est vraiment c' est c' est ñooñu c' est des c' est des livres historiques. ñoo ne foofu non jënd naa ci depuis donc parce que il faut le président moo demandé woon ñu dellusiwaat Macky 2012 ndax boobu aussi ndax doomu réew mi ñu créé ko boobu waa APR ñooy xeex ak Macky 2012 xeex carrément donc bi ñu demee ba xam ni ma ne leen gars yi li fi dal jarul coow. coalition coalition rek dañ ko rey coalition ki dañ ko rey ko rey doomu réew mi pour bàyyi coow mais après le président bëgg ñu ñu kii pour répondre à ta question boo gisee euh, mu mel na président faale ñu du ñàkk a faale président li mu bëgg wax ne dafa bëgg ñun ni nga xamante ni bi yëpp ñooy nekk Macky 2012 ñu nekkaat benn say pour am doole te loolu euh, defuñu ko parce que am na ñu ko bëggul am na ñoo xamante ne bi seen intérêt moo nekk ci coalition yu divisé wu donc comme nag président ñun ni ñu ni mu bëgg ñu mel meluñu ko ah moom tamit dafay xaw a téye boppam parce que tamit kilifa tamit kilifa kilifa la. bu fekkee moom mooy président coalition bi ne yéen ñëpp dajaloo waat leen dajalaatu leen moom li mu bëgg mooy une coalition réunifiée maanaam lañ nekkoon ci një njëlbeen yo ñu ñu melaat ko. donc tant que nag ma ñu jàppalaan tant que melu ñu noonu aussi ñu nag président du ñu déggoo ci politique mais bu dee nag personnellement wax dëgg yàlla respecté nañu parce que ñii la mel ne leen ñii mi ngi wax ak ñoom ñii mi ngi leen di recevoir. donc ñii booy nañ leen ci gestion ci gestion réew mi am na ay Macky 2012 yu bëri yoo xam ne aussi ñu ngi ñu ngi APR léegi comme Mimi Touré Zahra Iyane Thiam euh, Lat Diop donc moom aussi membre fondateur la euh, ci ci Macky 2012 la la la bokkoon léegi dañoo dem APR ñoom. dañoo dem APR très tôt donc euh, donc ñooñu moom ñu ngi APR loolu na moo tax. coalition bi doole bi ñu war a am aussi oh. amatu ko waaw. d'accord léegi Mouhamadou Moustapha Diagne instant bi ñuy waxee ak yow. yow am na ñuy wax yow yaay coordonnateur Macky 2012. Euh, maître Moussa Diop moom itam day taxaw ne mooy euh, coordonnateur Macky 2012. mu mel ni ñaari coordination moom moo am. loolu euh, lan moo ci sa jàngat. waaw d'abord président li mu bëgg moom ñu def coordination tournante wax nañu ko li mu bëgg depuis le début dañuy mettre une coordination tournante maanaam boo nekkee coordonnateur ñetti weer juróom benn weer nga dem keneen ñëw comme ñëpp ay leader rek ñoo fa nekk. Euh, man loolu laa gëm man dama ni su bu ñu organisé waatee ba gis président man li ma yor dama koy delloo parce que doyuma ko dara amalu ma benn man amaluma benn njariñ parce que man suma liggéey sama parti day na ma sëkk. am euh, Moussa li ko indiwaat ci coalition bi lu lu simple la mooy euh, jamono yi bu ñu fi waxee affaire wu déclaration Ila Touba ci la ñëw ci coalition bi pour bon booba yaakaar ne président daf koy dàq donc muy ñëw président bañ ko dàq bon bi mu toogee tuuti aussi comme ñun ñii ñëpp booba dañoo toog toog nañu parce que danañ ñëw ci coalition bi fekk fa ñoo xam ne xamoo leen wala boog le débat n'est pas politique fa la nekk di wax yu kenn xamul ñëpp toog jamono yooyu ci la profito euh, dugg bon boobu ci aussi mi ngi dem moom ña fa nekk ñu def ko coordonnateur loolu on on lui concerne ça mais bi ñu paree orientation yi mu jël. yóbbu coalition bi pour ay intérêt moom parce que booba Dakar Dem Dikk ñu ngi koy xeex mu ne mu bëgg a utiliser coalition bi contre les syndicats de Dakar Dem Dikk loolu c'est pas la vocation de la coalition ensuite bëgg jël aussi coalition bi euh, nekk ko mettre ko euh, def ko instrument de pression contre le président parce que boobu Moussa avait besoin de voir le président te mënu ko gis jàppoo na ne aussi bu nekkee coordonnateur Macky 2012 dafay gis président d'ailleurs c'est le boo xam ne euh, kii nañ ba ñu te nekkul gisul président bon bi ñu créé nag IREM e 12 maanaam initiative euh, pour la restructuration de Macky 2012 y avait Adji Mbergane Kanouté euh, professeur El Hadj Mbow euh, man mi donc Serigne Bassirou Diakhaté Mously Diakhaté député y a aussi donc Alla Alla Dieng Serigne Bassirou jaxate donc bi ñu ko bi ñu ko bi ñu ko créé mu defee ni ñun coordination la ñu soxla donc mu xëy ñu ni ko na na nga leen dàq ña fa nekk nga xam ni Eh, bokkuñu Macky 2012 duñu membre Macky 2012 duñu membre fondateur xamuñu li Macky 2012 ba ma ba mu dàq ñu ba mu dàqee nag ñun tam ñu réunion suspendre ko parce que Macky 2012 amul dàqee kenn moo fi mën a dàqee mooy président bi dàqul kenn donc euh, tey tey jii suñu waxantee dëgg suñu waxantee dëgg bu fekkente ne bi yow suñu Abdou Khadre dama ni kii eh, dama dama am daayira da nga yor da nga yor daayira man sa daayira bi maa la ko jiiteel ba pare yow nga daq ba nga taxaw nga def ay coordonnateur mais musa xam ne nekkatul coordonnateur quoi que ce soit. nekkatul non xam na ko xam na ni président neexu ko woon Moussa nekk coordonnateur. yow yow lan nga jàpp ne moo naqari Macky Sall ci maître Moussa Diop su dee am na lu ko naqari ci moom. waaw peut-être bu dee ci wàllu politique. waaw ay ay ay déclaration lu neex président Macky Sall xam nga boo li mu li mu wax ci tubaab loolu mënul neex président Macky Sall. ensuite Moussa day day attaque waa coalition day attaque waa APR xam nga toog na fii sax ne dafay enregistré dafay am na ñu mu enregistré ay responsable APR yu mu enregistré ndax doon na fi saaga Mahmoud Saleh ñëpp doon na fi saaga Abdoulaye Daouda Diallo saaga na fi Aïssata Tall Sall donc saaga na ñëpp <laughs> waxuma laa ñun ñii ak xam nga loolu tam boo koy malee ci biir kii da ngay gêner président bi ci politique parce que aussi moo nekk ci benn camp politique yow saa boo xëyee dafay attaque personnelle maa ngi dafa attaque de de principe wala mais ay attaque personnelle la doon def te loolu président Macky Sall ko. bëggul nit ku belliqueux maanaam koo xam ne bu xëyee soo ba yaa yaa ngi yaa ngi yaa ngi xeex ak say ak say nawle yéen a xamante ne yéen a bokk camp boobu kay def ko ci bi contre l' opposition mais lépp. saa bu xëyee mais mi ngi ci responsable APR yi mi ngi ci responsable Macky 2012 am aji mbergan indi Mouhamed Diagne ba léegi te te ñun ay membre éminent de Macky 2012 lañ boo boo ñu dàqee mais du neex président Macky loolu loolu neexul président Macky Sall loolu ba mu ko defee neexul président Macky Sall moo tax bi ñu créé IREM bi ñu bindee président wax dañu dañuy def dañuy def refondation président bu leen def refondation def leen restructuration donc boobu la Moussa xam ne que yéen dañuy def président ànd na ji mais nag il faut de l'intelligence politique pour le comprendre. léegi yéen euh, maître Moussa Diop euh, dama dégg yow euh, foo wax nga ne moom xamoon na ne dañu koy dàq ci Dakar Dem Dikk loolu foo ko teg. non xam nga boo fekkente ni bi da nga nekk directeur général. Euh, bu ñu la waree fal da nga koy xam ndax ndax président ku fal wala état ku muy fal dañu laaj sa CV di defal enquête de moralité di nga xam ne président am na schéma bu mu nekk ci yow boo xamante ni bii da nga koy xam da ngay noppi nag parce que état am dafa am secret bu ñu la dàq aussi généralement sa ministre dina la informé wala say canon personnel dina la parce que dafa am conseil d' donc amul DG bu ñu dul dàq. te du xam à travers même bu la ko état waxul à ton ton conseil d' administration di nga xa nit dina la ko wax ni saway way euh, donc état bi pare na ci yow. donc bi muy dem di def euh, déclaration boobu boobu affaire bi jeex na maintenant nag mu bëgg a def dóoru yóbbaale donc comme dàq nañ ma comme c'est comme ça donc man dina engranger gain politique en ma présentant comme victime du troisième mandat mais parce que avant loolu. Euh, mais seetaan naa ci ay télé yoo xam ne laaj nañu ko affaire troisième mandat bi mais daf mais man man maa man maa la ko wax fii Moussa Moussa Kër bi mu dem bi def affaire troisième mandat boobu affaire bi jeex na tàkk d'ailleurs sax xam ne six mois avant que affaire bi jeexoon na moom d'ailleurs sax loolu taxoon mu pour pour ne pas quitter mais Macky 2012 mënu ko empêcher mu mu mu quitter Dakar Dem Dikk parce que parce que yooyu président koy joxe. ndax jàppoo ne euh, taxawaayam tey. dina bokk si euh, jàmmarloo ak euh, Macky Sall ndax jàppoo ne moog président Macky Sall su moytuwul wala Moustapha Diop bu deful Moustapha euh, maître Moussa Diop bu deful ndànk ndax jàppoo ne dina jàppante ak président Macky ndax moom dafa njort ne am na ñu tàmbalee jóg di yëkkati ay xibaar pour xoqatal kook yu demee noonu lan moo ci sa xalaat. en tout cas communiqué bi moom mu gis moom ak i partisans ñu bind ko. xam naa ni bu loolu su continuer moo diggante bi ak président Macky Sall du du mujj neex ndax déjà euh, jéem na taxal président Macky Sall ci troisième mandat bi loolu neexul neexul président parce que ça n'a rien à ñaareel ba aussi euh, fi mu nekk nii. man du ma bett tey. waaw naa muy wax émission du ma bett tey Moussa dem opposition parce que bu fekkente ni bii yow nguur gi da ci ñëw ndax da bëgg poste. ah bu ñu la jëlee ci poste bu ñu la ko joxaatul ragal naa dina dem opposition tax te Moussa aussi dafa jàpp ni dafa war a nekk candidat comme ni mu nekk woon candidat en 2011 dafa war a ja nekk dafa war a nekk candidat en 2024 daf ko daf ko daf ko jàpp si si si c'est légitime mais nag bu fekkente ni da nga bokk ci benn régime ñu seetlu la juróom lu toll Dakar dem bi juróom benn at. Mm-hmm. ba léegi may waxee ak yow nii am na ay Macky 2012 yoo xamante ne bii mosuñoo dégg nomination. te ñu ngi toog jàpp seen jàmbur jàpp seen ngor donc ñu xam aussi ni président Macky Sall li tax ñu ànd ak ñoom li ci ëpp euh, nomination baax na mais bu ñu fàtte ni boo demee yoon yokkute xam nga ñu fa waxoon nañ defar tali yi nañ defar robinet yi nañu defar ay forage nañu defar ay école nañ defar ay hôpitaux nañ defar ay autoroute nañ too mbay mi sàmm gi napp gi nañ seet booy ànd ak moom aussi seetal ba xam loolu mi ngi ci fekkente ne bi ma nga ci war nga mën a ànd ak mais nag jàpp rek ni yow damay ànd ak moom parce que jox na ma poste wala ànduma ak moom parce que poste ba nangu na ko donc loolu nañ jàpp ni yàlla mooy mooy dogal ci ci ci jàmm nañ ko jàpp ensuite kun seede juróom benn at ci ci nguur jox la poste ba toll noonu xawma ku war a taxaw di xaram nguur googu mais du yow mais li ma gis ñu ko wax ci inondation yi daanaka xaw xaw nañoo xas gouvernement bi waaye na gouvernement bi wala seen i seen i jéego dafa yéex loolu moom nekkul lu lu rafet. d'accord jërëjëf euh, Mouhamadou Moustapha Diagne euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot 15h euh, jàpp 16h moom moo jiite parti bi di Synergie républicaine nekk coordonnateur Macky 2012 ci genn wàll gi Mouhamadou Moustapha Diagne li nga xamante ni tey moom laa la waxoon sànq ne man bokk naa si ñi gëm ne Macky Sall joxul benn considération bi Macky 2012 te Macky 2012 lu mën di xew ci Sénégal ngay politique nga ñàkk politique yéen a yéen a njëkk a gëm Macky Sall. boobu bëri na ci Sénégal yi ñoo xamante ni euh, gëmuñu Macky Sall. Euh, loolu mooy dëgg ndax bu manqué considération ci Macky 2012 force euh, remarque boobu Sénégal yi bari danañ ko def. Mm. te gis nañ fi mu teg coalition benn bokk yaakaar ak yeneen coalition yi te yéen gis nañ ne amoon ngeen ministre. Mm. Ah, ministère ministre boobu tekki nañ doomu tànkam. Mm. Euh, SICAP. Mhm. Euh, Ibrahima Sall mi ko jiite woon. Mhm. Euh, jiite modèle ci Macky 2012 ci la bokk. maître Moussa Diop moom tim dindi nañ ko ci Dakar dem dikk. même rek peut-être mën na am yeneen problème ci déclaration politique yu mu def. Mhm. mais loolu te poste yooyu gis nañ ne joxuñu ko waa Macky 2012. naam naam administration mën na doxee bañ a doxee noonu mais gis nañ tey parti socialiste am na ci ministère yoo xamante ni ba léegi ñoom ñooy wéy di ko yore. Euh, loolu est-ce que wanewul ne coalition Macky euh, mag ki bàyyeetu ko bàyyeetu ko xel. te coalition bi euh, ma ngi suux. jërëjëf mais man naa wax ni loolu aussi ñoo ko xaw a teg suñu bopp ndax division bi parce que am na loo xam ne suñu ko meloon am na loo xam ne président du ko def. bu fekkee ne nekkoon nañ benn say. nekk benn doole parce que tamit bi ñu gañee rek dafa am ñoo xam ne dañoo am poste rek ñëwatuñ ci coalition bi. ñu ci daax na nga dellu si. amoon ah waaw ñu si bëri na kay mu ngi koy ba problème dellu si mais am nañu aussi bi dem après donc mais yi ngay wax nii wax dëgg yàlla ñoo président dañ ciy def ay débat yu méttee méttee métti ba constituer désaccord bi constituer nañu désaccord ni. Euh, gëdd bi euh, kii gaa sedd nañu ci nguur gi mais li ñu sedd doyul. Mm. kooku dañu ko constaté wax naa ko parce que souvent damay wax ni. Euh, ci li ma jàpp dafa wax naa ko li ma la wax ni président laa ko wax donc mën naa ko wax ci kaw li ma jàpp ci gis-gis dañoo dañoo dañoo sédd bu baax APR euh, tibbal benn mbokk yaakaar ñun ñu sarax ñu. waaw ñaagal leen. waaw ñun wax naa ko président euh, kii ci mu mujjee gisee xam nga nag en même temps aussi li ma wax mooy ñun ay parti politique lañu président moom la yàlla jox nguur gi ah. te li taxawul fondamentalement aussi ñu ànd ak moom mooy mu defar réew mi fondamentalement gis nga combat poste yi bi ñu ko war a xeex xeex nañ ko xeex nañ ko fii tey jii ku am poste ci Macky 2012 ñu si bëri maanaam wax ni euh, ginnaaw yàlla na ko sante xeex bi bi ñu xeex taxaw gi ñu taxaw euh, fàttali président jàmmarloog waa APR bu metti sax ba président ñu bëri mu mu fal leen loolu moom histoire la di na boo xooloon archives yi 2013 2014 xeex bu metti moo fi amoon diggante mouvance présidentielle bi suñu diggante sax ak Benno Bokk Yaakaar parce que ñëpp jàppoon ne sax Macky 2012 dina tas benn Bokk Yaakaar mais suñu demee nag ba am ba premier mandat jeex ba deuxième mandat euh, dugg si xam nga tamit booy ànd ak nit doo ko gêner moo tax yu bëri dootuñu ko wax ci kaw ndax bu njëkk yi may wax lépp ci kaw lañu ko daan wax waxu dàngam nangam mais léegi buñu tasee moom rek ah wax ko lañu naqari parce que ñun bu ñu tasee moom nekkuñu foofu di di ménager quoi que soit bu tasee moom lu ñu xalaat noonu lañu koy waxee mais nag léegi bu ñu fa jógee on s'occupe di défendre ay réalisation parce que donc loolu moo am solo parce que nit ñi aussi boo fekkee da nga nekk di wax poste poste poste poste te léegi bu ñuy. waaw mais yéen euh, défendre président Macky Sall euh, tamit ñu baree bari gisuñu leen ci ci ci combat boobu noonu taxawal xeexal Macky Sall défendre ko ci yenn yenn poñ yi ndax léeg ñu song ko ci communication opposition bi wala société civile bi Macky Sall jaaxle même Benno Bokk Yaakaar dañ leen di reprocher loolu wala ay sax ay jegeñaale Macky Sall est-ce que yéen ban taxawaay ngeen def ci loolu. xam nga man ci li ma dénk en tout cas ci li ma dénk moom kenn mënu ko wax ndax tey jii euh, ci école bi. boo fa demee ñëpp xam nañ ma ci maak syndicat yi. donc ku nekk aussi lu ëpp ci li mu la dénk ci nga koy défendre te école bi déjà dafa metti c'est 43 syndicats xam nga ni syndicat enseignants yi. jàmmarloog moom euh, du nëkk lu yomb. te 2014 ba léegi donc maa ngi ci loolu moom vraiment du en tout cas man ma ci. ci yenn question yi aussi vraiment ku ne xam na man ci la maak Sonko sunu sunu xeex donc te man Sonko juróomi dara. su ma song Sonko président Macky Sall moo moo tax ndax man Sonko musuma tudd mhm. mais saa bu songo kii ñu sonk mhm. donc affaire pétrole bi affaire gaz bi mais nag d'accord na aju Mbergane aussi. Euh, mi ngi def son mi ngi def son mi ngi def son ku gis xam mi ngi defan président. loolu moom nañ ko nañ ko nañ ko nangu tamit ay ku mel ni professeur El Mbow. maanaam ku nekk fa nga nekk tamit ci wàllu état bi yaa ngi koy défendre par contre nag ñu koy défendre bariwul loolu nangu naa pour un état normalement bu ñu xëyee xool journaux yi. déglu télé yi déglu rajo yi ñun ñoo waroon ëpp lu ñuy gis. Mm-hmm. mais ñu bëri aussi ñu leen jox ay poste ñuy waaf. Mm-hmm. aussi président Macky Sall. Ah, xam mais ndomb tànk yi nga xam ne joxoon nañ leen ko ndax yéen euh, coalition Macky 2012 gis nañ ne Ibrahima Sall nekkoon na fi ministre euh, nekkoon na directeur général SICAP ndomb tànk yi amatul benn ndomb tànk mm-hmm. euh, Eva Marie Coll Seck nekkoon na fi ministre amatul benn ndomba tànk. ministre d'état la. yorutul ministère maître Moussa Diop. noonu léegi. yéen lan ngeen dese dëgg-dëgg réellement nag euh, Mamadou Moustapha Diagne coalition Macky 2012 ban nomination tey nga mën a wax bu passé ay député yooyu ndax député du nomination bu leen mag Sall jox ban nomination nga fi mën a wax ne président moo leen ko defal à xam nga wax nga dëgg que ñu jël poste si Macky 2012 jox ko affaire li tam wax nañ ko président. Hmm. wax mosuñoo comprendre que ñu jël bu ñu jëlee post ci Macky 2012 jox ko. loolu aussi wax nañ ko président mu mu dégg ko euh, mais. mais ñun duñu président. waaw mais kii xam nga président mooy mooy président moo xam aussi tax muy nommé parce que moom moom la ko yàlla def mais neexuñu loolu moom neexuñu wax nañ ko ba mu dégg ko. mais nag mooy président moo leen bëgg a néewal doole moom si boppam. waaw mais xam nga politique aussi rapport la ay alliés lañu te président aussi dafa am day contextualiser maanaam contexte bu nekk mooy seet lu muy lu muy def euh, ak lu koy defee. moo tax ma wax la ne bu fekkonte ni bu fekkonte ni bii ñun benn say lañu nekkoon Macky 2010 ba ñu nekkoon ba tey am na loo xamante ni bii moom. Hmm, président du ko du ko dina ko sañ sax mais du ko def. Hmm. parce que day xam ne ça c'est une force politique. bu hmm. mën a amatul force politique. maintenant euh, si si force politique mais qui n'est pas parce que force aussi dañu koy organiser. xeex dañu koy organiser loo am am doole boo organisé xeex dañu lay dañu lay daan. mais nag euh, ba léegi quand même y a Maodo Malick Mbaye qui est DG y a Euh, Pape Ndaw aussi kii est qui man mi euh, directeur la ci PCA la bon même Assane Dia Assane Dia aussi PCA la nangu nañu postam Sodefitex <laughs> jox ko jox ko ah. <laughs> jox ko affaire bon yooyu tamit euh, vraiment neex non mais waaw waaw non dégg li ma la wax xam nga dama ne wax wax nañu ko président mais nag xam nga aussi yow bu fekkee dañ la nommé da ngay def attention mm-hmm. bu ñu la nommé d'abord da war a toppatoo sa base politique parce que un un homme politique day def politique. mais bu fekkee aussi dañu la nommé yow toppatoo sa base politique. Euh, dafa amoo une existence médiatique waaw ah, ci lim la dénk gisu la ci wala boog parce que aussi parfois ñu jëlee fa nit président mooy xam la tax parce que tamit euh, yow da ngay xam nga ku gérer aussi dañ lay auditer dañ la on sait jamais. donc peut ñu bëri aussi des nañ seen poste ah donc euh, ñi ma la wax nii moom a moom moom a moom a ñëw ni sama xel mais bëri nañu aussi ñoo xamante ni bii ba léegi ñu ngi ak seen poste. bon pour nga nekk député aussi il faut président def la ci listam parce que Adji Mergane Moussa Diakhaté président moo leen bind ci listam waa donc pour ñu dem pour ñu def pour ñu nekk député donc loolu aussi ñu ngi ko koy santé di ko gërëm mais nag bëggoon nañu quand même mhm. euh, kii suñu député yi tamit ñu ay position yu baax à maanaam ñu duggaat ci ci ci bureau assemblée loolu moom vraiment bëgg nañ ko suñu suñu sa yoon parce que tamit muy muy Adji muy muy muy kii moon tey Euh, Macky 2010 la bokk ci bunt bi muy Mously Diakhaté suñu sa président aussi de y' aussi Abou Nguet am nañ fa kat Macky 2010 si assemblée bi. buñu sa ñi ngay wax nii est-ce que d' accord nañ ne yow nga nekk seen coordonnateur. mais bien sûr bien sûr euh, muy muy euh, kii par exemple boo jël Théodore Montey El Hadj Mbow ci RM12 la bokk kii Mously Diakhaté ci RM12 la bokk. aji mbet gànkalante ci ci ci ci ñun la bokk donc y' pas de problème damay la ñi nga xamante ne bii ay membres fondateurs lañu les grands leaders de Macky 2012 sont avec nous kooku moom aussi mu mu mu leer. d' accord jërëjëf euh, Mouhamadou Moustapha mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi euh, ñu wax ci li nga xamante ni tey moom mooy euh, coowul ñetteelu mandat bi ci Sénégal fan yi dañu gis ne ki jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di Aymérou Gningue moom dafa ne Macky Sall juridiquement am na sañ-sañ def ñetteelu mandat euh, te kàddu li ñu déggoon mooy Macky Sall dafa ne mbirum ñetteelu mandat bu ci kenn wax yow lan moo ci sa xalaat. gis nga réew ci politique ñaari débat moo am c'est un débat armé ou un débat politique débat mooy d'accord ñu jël ay armes di xeex comme ni muy xew ci yeneen réew yi mais fii Sénégal lépp dañ koy teg débat def ko débat démocratique ku am sa xalaat. nga nga wax ko affaire troisième mandat bi président moo moo ngi dajale ne su ma soyoon daal ngeen bañ ci waxati parce que débat la boo xam ne mën na fi indi ay affaire coow comme 2011 ak Ablaye Wade mën nañu aussi tere liggéey mën nañu désorienté su ma sañoon ngeen bañ cee waxat yi ñu liggéey quoi ngeen may ma loolu ñun ñëpp ñu may ko ko kenn waxtu ci. Euh, maintenant nag ki ki ku ci wax ku wax ni président euh, amul droit def ko wala am na droit def ko pour man si un débat démocratique man gisuma man pour man. man c'est un débat démocratique. waaw léegi léegi euh, Mouhamadou Moustapha Diagne hmm. dañu gis ne am na ñoo xam ne wax nañ ne Macky sàll waru koo def ñu dàq leen. Hmm. ñii wax ne Macky sàll war na koo def te kenn du leen dàq loolu tamit en tant nit kuy xalaat. Euh, am indépendance ci boppam war na am euh, xel mu ñaaw ci wàll woowu yow loolu lan moo ci sa jàng. ñu koy wax ñu ñu dàq leen loolu ci kaw la mais gars yi bu ñuy xooloo politique lu loolu lañ jotee man wax li tey li wax ci kaw du moo nekk ci suuf jële Moustapha Diakhaté bi mu fi nekk président groupe quand quand ça allait bien là mu nekk président groupe parlementaire di am salaire baax di jot ay fonds politique da nga dégg ci dara ko ci dara ba mu nekkee président aussi. dégg ko ci dara tout était bien bi mu génnee bi mu génnee évidemment euh, bi ñu ko génnee foofu ci coow li commencé xam nga aussi Sénégal li ko yàq mooy li ñu wax politicien professionnel parce que nit dafay am métier dafay am métier yow kii journaliste la man jàngalekat la parce que man tey su nguuru Macky Sall jeexoon wala man sama ma jeexoon si nguuru Macky sàll damay jëlaat sama bagage dellu ci école ba dem jàngale ci parce que loolu mooy suma métier mais politiciens yi ko yàq mooy ñi nga xam ni moom lañ def métier donc souvent ci ay pression ay chantage Moustapha Diakhaté toog na fii ak kenn déggul mu wax dara c'était c'était c'était boo xasee jën nag comme pour pour tappaas président da nga comme nee na léegi affaire trois ans mandat bu ko yéen tudd ko en fait dañuy bëgg a jënd quoi donc nga tappaas président. fekk sax ni fekk sax ni fekk sax ni dàq na la bu yàgg. même kaw maître Moussa Diop man ñoom ñëpp. dañu lay daax a pare léegi nag xam nga politique aussi dafa ànd ak communication comme dañu maa dàq aussi man ma def sama bopp victime pour population yërëm ma pour kii mais yow bi muy neex doo doo dégg gars yi boo leen woowee sa doon jot ñun Moustapha Diakhaté boo ko woon léegi mu jot ko parce que affaire nekkatul aux je pense que euh, ba pare nag dina kilifa dañ koy wekk dañ koy wekk sa kilifa mën la wax bul def nangam bu fekkente ne fa nga toog noonu man fekkente ne te kenn d'accord bi mu koy wax président man d'accord ma dinaa ci wax. dama d'accordoon kon comme joxe nga sa kàddu nag na nga ko respecté mais ñii di wax affaire troisième mandat dañ leen dàq ça n'a rien à voir même si di kaba fekkoon na décret bi nekkoon en cours jeexaloon na mais après Sori Kaba Sori Kaba maanaam si di excusez-moi Sori Kaba décret bi jeexoon na mais après nag dañ dañ koy considérer ak fait troisième nga def mais li ci li tax ñu dàq leen xam ni ça n'a rien à voir avec un troisième mandat. d'accord léegi euh, Mouhamadou Moustapha Diagne ay mbiru ñi moom. am na yëg-yëgam xalaatam ne Macky Sall war na def ñetteelu mandat. yow lan moo ci sa xalaat. non wax war war na def. juridiquement waaw dañuy juridiquement. mën na euh, def mën na waaw mais loolu waxul ni day def troisième mandat day def beneen mandat. mais mën na def ñetteelu mandat. waaw mais xam nga ni juridiquement mën na def koy kooku bokkul ak day def troisième mandat bokkul aussi. Euh, ak. bëgg na ko def bëgg na ko def parce que aussi pour pour pour nekk candidat ki ñu koy wax il faut mu bëgg ko. Mhm. xam nga Macky Sall. Macky Sall il faut pour pour pour 2024 mu nekk candidat il faut que 2023 mu ne man bëgg naa nekk candidat kon kay cool yi jarul jarul ñu bëri nañ bàyyi ba 2023 rek ñu xool qu'est-ce qui va se passer maintenant nag euh, euh, li ma li ma li ma la li ma la expliqué su ma daal. su ma sañoon pour le moment ñu ñu bàyyi débat boobu parce que débat bu baaxul ci réew mi. li tax baaxul ci réew mi opposition bi dafa ko doon ko bëggoon a jël pour mobiliser popul population yi contre le président. Euh, boo nekkee ci état aussi doo jël benn thème boo xamante ne bi opposition bi moo ko war a moo ko war a moo ko war a gàddu yow nga koy alimenter ce n'est même pas du point de vue politique ce n'est même pas intelligent opposition waruñoo imposer sunu euh, donc sunu sunu sunu ligne communicationnelle. wala suñuy thème communicationnel ñun ñoo war a xool ci lan lañu war a communiquer mais bu fekkente ne au lieu ñu di wax ci président yi muy def ci ay autoroute def ci mbay mi sàmm bi napp bi ñu topp opposition bi ci ay wax aussi moom laa lay wax nii moom laa lay wax nii ce n'est même pas intelligent parce que booy def politique da fexe jël initiative communication maanaam dugal benn tam mhm. nga mën préparé ba jékki-jékki rek ne Sonko 94 milliards yi mhm. bu ko defee gars yi gars yi foofu mhm. waaw parfois ku ñu dàq ci fonction publique waroo nekk euh, candidat président boobu suñu thème la ñoo ko choisir. mais dicta dictature la yëfu dictature la yëfu jaay doole. non yëfu dictature yëfu jaay doole c'est un c'est un débat politique parce que yow boo boo dugal débat politique opposition mooy dugal débat politique te bu fekkee ne opposition moo dugal débat politique dafa lay affaiblir. mais mais débat politique ko ci yoon quand même Mamadou Moustapha Diagne. non man li ma la dàq fonction publique pour faute politique may la nga ñëw ñu la dàqaloon nga ñëw jiite waat leen xel daf ko bon sens daf ko daf ko nanguwul bu ma nee par exemple son 94 milliards yi moom moo wax ni euh, xam na fu compte yi fu nekk xam na xaalis bi fa ci yan la jaar Mamour Diallo moo jël son 94 milliards wax naa ni justice na na woo Sonko woo Mamour Diallo affaire bi leer. parce que 94 milliards lay caaxaan euh, pour ñu rebondir ci euh, boobu ngay wax noonu ngay junj ngeen ne assemblée nationale loi boo xamante ni tey. Euh, dafay dàq euh, képp koo xamante ni tey nekkoon nga fonctionnaire ñu dàq la yow mënatoo jiite. réew euh, mi ngeen def allision a Ousmane sonk bu ñu waxantee rek dëgg Ousmane Sonko. ak ñu mel ni moom ak ñu mel ni moom peut-être mais tey yéen kon yéen xalaat ngeen ne Ousmane sonk am na doole joo xamante ni mën na gañe mën na gañe réew mi. non non Ousmane mënul gañe réew mi c'est pas possible. d'ailleurs c'est bien que suñu bàyyi mu bàyyi woon ko mu dem candidature parce que loi bi par exemple xalaatoon naa ko avant élection présidentielle mais dama boo ko jénnee da ngay créer confusion nañ ko yóbbu élection yi nga yóbbu élection yal na ko ba ca kaw teg ci suuf parce que entre ñu nag moom y a 2 millions de voix du du truc euh, ensuite Ousmane te li mu jugtee xam nga bu fekkente ni bii da ngay def politique euh, lacrymogène mos sa daan sa kaw man mii di wax ak yow en le 25 février 1988 lacrymogène bi njëkkat tàkk Thiès sama kaw la dal fële boori pharmacie baas police mosoo tëdd ba guddi ñu war a une heure du matin ne la police ak lay seet man en 99 tëdd naa ba guddi une heure du matin sama benn xarit euh, Saliou mbay mi ngi woon kële ànd jëf woo ma ne ma booy dawal dawal dem seen village parce que police ak lay seet maa ngi dégg bu la mës a yóbbu commissariat bàcc la mos nañu sotti ndox mu tàng mais yow sa. sa kii yëpp mooy euh, nekk ci Facebook beeg WhatsApp beeg yooyu am na loo xam mënoo ko xam ci politique. lii Ousmane Sonko am deux mille euh, euh, deux mille dix neuf jiba ko amoon na ko en deux mille dix huit Niass Moustapha Niass amoon na ko en deux mille donc nekkul lu bees parce que lu juutere la mais politique c'est une c'est une c'est une course de fond la. am na loo xamante ni bu ma ko gisee ci kii bi nekk fi di saaga nit ñeeg yooyu du mooy nombre de vie ak nombre de j'aime du mooy joxe réew réew du ay ay caaxaan réew li koy joxe facteur bi dafa bari. d'accord te nii mu jógte nii du ko ñuy jox réew mi parce que fekkee amoo yar amoo amoo amoo ay teggin temps doo wax dëgg parce que wenn saa yi nga ne kii jël milliards wala kii sàcc na pétrole bi kii yooyu mënu ci jël mënu ci jël réew mi parce que fii c'est un peuple intelligent boo xam ni xam nañu kan moo mën a yor réew ak ku mënta yor réew. d'accord mais euh, euh, Mouhamadou Moustapha Diagne euh, am na tamit loo xamante ni tey wax nga li Sonko am ci élection présidentielle 2019 def nga si wax nga si Moustapha ñas mais ñooñu parcours bi ñu def avant que ñuy acci si chiffre boobu wala pourcentage boobu wala voix yooyu xaw na yàgg te am na lu bari lu ñu fi jiite. sànq tamit yow wax nga ne Ousmane sonk amul xam-xamu politique. ndax peut-être dajul lu bari ci politique comme yow li nga wax moo nga hmm. daj police jàppala ak nga jàmmaarloo ak grenade lacrymogène yeeg euh, lu demee noonu mais tamit est-ce que tamit Ousmane Sonko du baax ngir nangul ko ne def na benn jéego ci wàllum politique amaana ni mu ko def mën na salte wala mënul jaar yoon loolu lépp peut-être seen seen interprétation la wala seen gis-gis la mais koo xam ne mosul nekk maire euh, musul nekk ministre mosul nekk PCA ñëw si politique am ci benn taxawaay bi nga xamante ne yow Mouhamadou Moustapha Diagne xam nga ne bu ñu tudd opposition fii ci Sénégal force ñu tudd si Ousmane Sonko même yow boo ko si boolewut am na ñu ko si tudd. Euh, en tant que jeune tamit est-ce que du ngeen ko nangul ne teg na ay jéego ci wàllu politique gu Sénégal. li mu am nii parrainage bi ko may boo defee lecture bi ma wax la parrainage bi moo ko may bu Khalifa Sall bokkoon Malick Gakou bokk. Euh, Thierno Alassane bokk Karim Wade bokk du ko am. ah bon que damay aussi damay bañ mu nax boppam. ndax dañu fi dañu yàgg ci ci langue yi parrainage bi euh, kii ça malheureusement pour nous euh, Ousmane la la favoriser te suñu demee ci local yi li ma la wax dinaa ñëwaat fii li ma wax nii na nga ko seet ils vont déchanter parce que politique bu élection bu nekk ak réalité boo xoolee aussi Sénégal yi ko voteel mooy souvent les primo votants xale yi nga xam ni euh, amuñu benn expérience bi en 18 ñu ngi doog am carte ak ñooñu nga xam ni bon affaire géré géréelu kii mooy géré bi yooyu ci yow lañ nekk. mais ñoom sax dañ commencé yeewu parce que de Ousmane lu mu fa gën a yàgg aussi ñu gën a xam mooy kan parce que Ousmane du ko bees mi ngi xas système bi mais Ousmane nitu tey bu njaay la tey bu njaay créé jàppoon na ko waaw Ousmane tudd nañ ko ci ay jaay terrain boo demee fii Almadi 2 fii moom ak jóob si ak euh, keneen euh, dama fàtte tur bi ñoom ñett lañ fa tudd kon ku ne xam nañ ko ci ay fir jaay suuf. waaw ci ci système bi la la nekkoon. defal ndànk rek eh, bi ñuy xeex Ablaye fu mu nekkoon. du moom ci réew mi boobu c'était bien mi ngi woon xaalisam di toog li mu am en en dix ans par immeuble bi mu dëkk daanaka xaw ma mat na 300 millions ci benn simple fonctionnaire mosoo nekk directeur mosoo nekk chef de service mosoo nekk ministre du député dara nga am loolu fan la ko jëlee. xam nga fii du du ko bees am na terrain yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko ñu ko ci ñu ko ciy tudd ay kër yoo xam ne ñu ngi ko ciy tudd donc ànd tay bu Ndiaye laa wax ni la mook tay bu Ndiaye ñoo àndoon tay bu Ndiaye bi bi ñu koy doog a jàpp Ousmane Sonko moo ko doon défendre te tay bu Ndiaye il est visé par la CREI xam nga suñ suñu gasoon foofu Ousmane euh, est-ce que sax duñ ko jàpp donc c'est pour te dire que nekkul ku bees et que xale yi mu àndal nañ ko xam am na xale yoo xam ne aussi mi ngi leen di saagaloo jël ay xale xam nga bu ma neexoon tey jii ma wut ay ordinateur jël ay xale ku ma tudd ñii saaga la ñi naan wuy Ousmane Sonko ñii daan Ousmane Sonko formaak yooyu xam nañ ko ce qu'il fait et comment il le il le fait mais boo nekkee ci réew di saaga ay nit wala di saagul ay nit bay boobu bu baax nga sàmm say arrière parce que na ko wóor ni moom nit ñaa ngi koy seet nit ñaa ngi koy gis te xam nañ ko xam nañ bu baax kii xëy na pour le moment li mu ko jarul li mu ko jaral lañ ko jaral parce que pour politique darul football moom match football yi ñoo yem bu ñu nekkee ci terrain bi parfois ñu gàññante far mais bu ñu xasee génn ci terrain bi ñoo bokk Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mais nag politique du affaire n du affaire jël ay nit di leen féewale ay féewale ay xeet noonu loolu loolu il faut Ousmane Sonko xam ko. dafay xeet la féewale non boo boo boo boo xoolee ndax parfois ma xool nii euh, ñi ñi koy wax déjà boo xoolee mi ngi da gis ni am na am na mi ngi def politique bu féewale ñii. lii lañu ñii lii lañu lii wala boog bi ñu ko bi ñu tuddee affaire 94 milliards qu'est-ce qu'il a fait dafa daw dem Casamance ne maa seet mbokk maa ngi seet nangam maa ngi seet yaa ni waaj dafa sàcc kay bu ñu la bëggee bu ñu la woowee kay dama wuy ji yoo xamante ni bii kenn du ko laal ci wàllu politique politique match de football dong la suñ ci paree ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoo bokk réew parce que Sénégal mun ñu ko séddoo te li ma la wax nii moom daf koy doog commencé mais Abdoulaye Wade mi def 26 ans bu fekkee ay performance politique rek la Abdoulaye Wade mu yëpp moo leen ci jiitu parce que moom am na fi élection boo xamante ni bi yëpp mu dugg plus je ne sais xaw ma 18 ou 19 députés yoo xam am na ko dugal ko assemblée donc c'est dire que euh, kii amul lenn lu fi lu mu fi def lu fi keneen deful te te bu bu ñu demee tuuti même bu Casamance yi muy wax da ko seqoon ak ku dugul Casamance mais bu demee local ba seqoo ñu dëkk Casamance ci lay déchanté d' accord jërëjëf euh, Mouhamadou Moustapha Diagne li nga xamante ni moo jëm ci wàllu inondation yi wàllum mbënn mi euh, gis nañ ne Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye ak Mamadou Lamine Diallo ñoom dañoo jàpp ne euh, dañoo luubal plus de 750 milliards yi ñu wax ne dugal nañ ko si inondation yi. ñoom ñuy sàkku ñu daal di koy auditer càmbar déglu ñi nga xamante ni njort nañ ne dañ see laale. yow lan moo ci sa xalaat. Abdou Mbaye moom président Macky Sall moomi tooñ ndax ñun ba ñuy xeex. ma woon fee naan ataayam te ku xam Abdou Mbaye xam ni nekkul euh, ku jub parce que bi mu nekk ci banque bi dossier yi ñu koy tudd man dossier Hissène Habré moom affaire di taqal di sa ko war a bàyyi. donc mais président Macky Sall moo ñu nag boo ko fekkoon mu naan ataayam mu jël ko def ko premier ministre jox ko tur mais Abdou Mbaye avant loolu da nga ko mës dégg fenn ban njëriñ la mës a amal Sénégal xaalis bi mu am lan fan la ci mën a da nga mës a dégg école bi mu dimbali ah ba jàkk ba gi mu am kenn mësu ko dégg. donc daanaka sama ab tubaab la alors Thierno ci ñun la nekkoon malheureusement bàyyi na yii mu doon wax yëpp yi mu doon wax yëpp contraire bi doon wax ba muy nekk ci ñun parce que Thierno man Thierno Alassane Sall euh, euh, kii ministre Augustin Tine euh, Abdou Mbow ñun Macky 2012 Thiès ñun ñoo fa nekkoon kon xam naa leen bu baax a baax a baax <laughs> ba 2011 donc xam naa leen bu baax a baax donc c'est parce que malheureusement sax bon parti bi y'avait eu des problèmes moo def mu bàyyi mais am na ñoom demee du bàyyi. te yi mu yi mu inondation yi. Mhm. man d' accord naa ne war nañoo seet lu mu doon. ñu audité ko parce que man man man affaire xaw damaa bett bi may déggee nii quand am na ay inondation yu mel noonu man bettoon na parce que dafa naa si donc def naa député yi def nañu mission d' information di ko seet donc lu ñu ci mën a seet daal moom. ànd suñu càmbar ko seet. waaw mais bien sûr bi ñu ko war a càmbar dañu ko war a seet qu' est n' a pas marché est ce que def nañu ci lépp est ce que tuyaux yi yu ñu war a jënd moom la war a jënd. Hmm. est-ce ñu war a gas moom la ñu war nañu ko seet. man li ma jàpp mooy man milliards yi ñuy def ci inondation pour man jaru ko nañu fekk daal ñu nekk ci nga xamante dañoo nekk ay cuvette hmm. wala ay bas-fonds. dañu jënd tabax ay kër jëye leen foofu. ñu bàyyi ndox mi fa mu dëkkoon mu dëkkaat fa ñu fay bay di fa def yeneen fa fa fa fa àll bi war a nekk dañu fa bàyyi àll bi. àdduna bi aussi te it ñu privilégié di construire en hauteur. dans des dans des dans des villes à concentration la humaine comme Dakar comme Thiès war nga tabax ci kaw ñu bàyyi espace dëkk bi noyyi fi ndox war a nekk nekk fa fii euh, donc gàncax war a nekk mu nekk fa mais mun ñu fu ñu war a tabax yëpp ñu tabax fa pour man la solution n'est pas euh, di dënd ay tiwo ay gas fu nañu gas fa nañu bàyyi ndox mi implanté wu naturellement boo ko defee euh, au tout autour ñu développé ay activités agricoles. léegi euh, Mamadou Moustapha Diagne waxtu wi léegi tey mu dab ñu si dab ñu mënuñoo ñàkk bañ wax wàllum wàllum njàng yow baccalauréat 2020 bi gis nañ jamonoy coronavirus bi ni mu demee. ak cours yi ak xale yi nga xamante ne ñoo doon jàng doon def bac. ñeen ñi jàpp nañ ne stress bi nga xamante ni amee nañ ko ak tàmmuñu tamit toog seen kër di jàng à distance ak xeet yu demee noonu ñu gis ne résultat yi mu génnee euh, ñi am bac bari nañu trop euh, ban jàngat nga si def. bac kenn du ko amee école bac kenn du ko amee école kenn du ko amee aussi classe terminale bac euh, da ngay def seconde première terminale boo ñëw terminale d'abord nga am niveau bu baax soo amul niveau bu baax dafay jafe nga am bac ñaareel bi aussi. nit ñi xàmmewuñu jàngi ak jàng jàngi mooy dem jël sa saak dem prof bi euh, defal cours bi expliquer euh, boo comprendre. baax na baax na souvent soo comprendre soo doo ñemee laaj doo xam ñemee wax prof bi comprendre ma donc li war résultat yi nag mooy xale yi bi ñu toogee seen kër déjà étudiants yi jàngatuñu ñu ngi ci kër yi jàngalekat yi ñu ngi ci kër yi. ndax am nañu temps encadré xale yi n'est-ce pas euh, euh, ministère éducation nationale defar ay télé defar ay plateforme xale bi boo amee internet bu duggee rek lu mu bëgg a gis ci wàllu cours ak exercice da da koy gis sëy nag ba tribunal sëy yi ba tribunal euh, bi ci tegu télévision yu bëri jël ay initiative di di di di jàngale donc xale bi nekk ci nekk ci kër yi am na confinement demuñu fenn xale yi xam examen la def seen mag yi étudiant seen rakk étudiant état baa ngi yónnee ay ay ay cours ñi nga xamante ni bii amuñu sax internet amuñu euh, rajo amuñu télé sans compter rajo communautaire yëpp dañoo dañ doon defar ay cours ah parce que dañoo contagié ak ñoom ñi nga xam ne amuñu loolu lépp ñu jël ay cours photocopier leen yëpp leen ko loolu lépp dafay tax day xale yi day nekk ci ambiance su jàng ensuite xale yi boo xam ni mhm. dafa toogoon ba defee ni du def examen mhm. ñu xayaat ne ko da ngay def examen ci xale boo xam loolu lépp soo amee mu tax résultat yi bettu ñu ñu bare bari. d'accord mais kon xam nga tey par exemple tey euh, professeurs yi nga xamante ne ñoo yoroon ay classes terminale mm-hmm. ñooñu ñoo doon jàngale. Mm-hmm. mais professeurs yoroon ay classes première ak seconde ñooñu am na yeneen cours ñu doon joxe même rek am na si professeurs yoo xam dañuy yor ay ay euh, dañuy yor classe terminale mm-hmm. mais kon da nga jàpp ne bëri na professeurs yoo xamante ni ak ñu doon jàngale ci euh, collège yi yooyu ñëpp. dañu am temps boo xam ne danañ mën a encadrer euh, élèves yi jàpp ne loolu am na si joué na si daal. kaa wax leen sax ji nga ñi amoon seen prof ñi amoon ñëpp ay classe kii examen dañoo créé ay groupe whatsapp jamono école tëjee nekk dafa soo yónnee ay cours dafa yónnee ay exercices di corriger. donc xale yi amoon nañu chance boobu ba pare bi ñu ubbee bi ñu ubbee amuñu woon ay classe 60 ay classe amoon. Mhm. ñi ngay wax nii ñi ngay wax nii. Mhm. donc dañ ko tas tas séddale leen euh, professeurs yi. classe bu nekk ay professeur ngay am classe bu nekk. ay professeur ngay am wala ay ay ay maître ngay am bu ko defee euh, xale yi xam nga jàngal 20 personnes yomb na. mais de résultat yi yomb daal. non xam nga bu fekkente ni résultat yi yomb nañu kon da ngay wax da ngay wax 80 pour cent waaye bac bi c'est moins de 50 pour cent donc ñi ci ëpp dañoo échoué. mais mais loolu mooy yomb. mais dégg nga li ci Dame Mbodj wax lan mooy sa xalaat. waaw xam nga kooku moo waxoon ni bu leen ubbi école yi moo waxoon ni. boo leen ubbee école enseignants yi dañ korona ak élèves yi dañ corona dañ dee donc moom ci logique la nekk yàlla de bu yàlla defee na loolu amul lu ci tegu mooy eh, résultat yi ab résultat yi day bon yàlla deful lépp lu ci tegu moom xam nga moom li en fait li lim mu jotee ak ministère bi leneen la dafa dem élection bi mu demee élection ñoom Saourou Sène ak ñoom eh, Ablaye Ndoye jàpp ko wuli ko ba mu nooy donc il il n'a eu que un virgule quelque pour cent léegi nag bokkatul ci négociation yi bokkatul ci dara yu teg mooy wër télé yeeg rajo yi yor la meñam ku ne mu xas la ku ne mu yàq sa der alors que école kenn du ko foowe kan mooy jël bagu Sénégal di ko foowe wala ay BFM mais nit ñi amuñu jot boobu sax dañ ko dañ ko dépassé loolu mais nag il faut ñu xam loo xam ni xale yi dañu yow mi ba ngay jàng wala pas yow sax mais ñun nga xam ñooy mag ba ñuy jàng mais pour ñu am livre pour ñu am livre math wala livre philosophie wala livre français mais c'est tout un problème suñu papa soo nekkul Jean Paul Sartre day dem ci internet mu kàppe Jean Paul Sartre. gis ay œuvre am. nest pas boo nee arithmétique bu demee internet lu mu bëgg daf koy gis. donc avantage yooyu xale yi amoon te ñu amuñu ko woon nga xam na ngay dem ci bibliothèque yi di rang léegi jaratu ko. même même sa papa mën na la wutal professeur bu nekkul sax Sénégal. mais euh, dégg lu ma la wax. léegi am tuteur am lu ne jàng mi léegi. contenu yi presque daanaka bu fekkee fekk fekkee rek la maanaam euh, dicté bi li ñu daan leçon yooyu ñu koy dicté. Mhm. daanaka jarul dem ci école yi. parce que loolu moo taxoon résultat yi baax. Euh, jërëjëf euh, Mouhamadou Moustapha Diagne yow la ñu invité tey suñu émission pencum réew mi suñu laaj bu mujj nag moom mooy sa parti bi Génération républicaine mhm. ndax moom nan lay waajalee élection locale yi wala moom du ci dem. jërëjëf ñun bi passé dañoo demoon xam nga bi passé pour te dire pour ñëwaat ci Macky 2012 bi ñu jubagul ak APR Macky 2012 dafa créé benn coalition. tudd ko alliance 2014. deme ko élection locale. tey jii boo demee muy suñu républicaine muy NIDA ñun ñëpp am nañ ay conseils au niveau national. foo dem ci maire boo dem am na fay conseil alliance 2014 bii di ñëw aussi. noonu lay demee parce que entre temps aussi man euh, Macky 2012 sax boo 2015 damaa décroché woon Macky 2012 complètement dem toog ci sama parti. j'ai pu faire euh, trois fois le tour de pays implanter parti bi fépp parce que aussi Euh, wax na ma waxoon sama gars yi ne écoutez il faut aussi ñu topp suñu parti parce que bu ñu toppee Macky 2012 Macky 2012 mais kooku du baax donc ci la ñu dem d'ailleurs sax moo taxoon man leen bu ñu bëggee président aussi gën ñoo naw gën ñoo respecté politiquement politiquement il faut ku ne defar sa parti man wax dëgg sama parti defar naa ko te élection locale yi di ñëw euh, incha allah daañu def suñu suñu coalition suñu jubee génne bokk yaakaar ak suñu jubul dans tous les cas nous irons aux élections locales kooku mooy li parce que élection locale du Macky Sall mooy wut ñun ñooy wut à la à la base. comme nawetaan la rek. fooy nekk candidat. xam naa Thiès certainement. commune. bon ça la va dépendre xam nga commune commune baa ngi fi taxawal ñu ngi commencé coalition boo taxawalee coalition da waxtaan ak nit ñi. donc xam nga local amul opposition. local moom da coalition ay coalition ñooy dem suñu demee ñi mën a ànd. ñooy ànd ndax nawetaan la. parce que bu fekkente ne waa réew mi dañuy ñëw ci man dañuy bokk ci man. Mm-hmm. wala waa AP wala wala waa Sonko ne dañ ah mais mënoon leen wax doo leen fi bokkee parce que foofu boo demee Thiès affaire Thiès affaire Thiès waa la. jërëjëf euh, ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf sëñ Abdou Khadre maa ngi gërëm bu baax euh, kontaan naa trop ci émission bi parce que permettre na vraiment tey moom ma leeral yu bëree bëree bëri. jërëjëf euh, Mouhamadou Moustapha Diagne yow ya jiite parti bii di jeunesse républicaine jiite nekk coordonnateur Macky 2012 moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew bi ñu koy jaajëfal bu baax a baax si wuy si euh, invitation bi euh, mbokk yi kon Abdou Khadou sekk moo nekkoon ci micro bi du jaawoo jàll ci wàllu technique bi ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw jërë ngeen jëf.